Mercredi 8 septembre 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2399 tests réalisés, 53 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,20%. Les cas positifs sont répartis comme suit. quatre cas contacts suivis par nos services. Aucun cas n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 49 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 26 cas, tandis que les autres régions du pays en totalisent 23. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que 449 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Quatre décès ont été enregistrés le mardi 7 septembre 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé à ce jour, 73 310 cas ont été déclarés positifs, dont 65 031 guéris, 1816 décédés et donc 6 462 patients encore sous traitement. Le la Santé et de l'Action so sociale informe par ailleurs que depuis le début la campagne de contre la COVID-19, 1 million cent quatre-vingt-deux mille cent quarante-cinq personnes on été vaccinées sur l'étendue du territoire national tey bésu alarba juróom-ñetti fan ci weeru septembre mi nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci ñaari junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi def juróom fukk ak ñett ñoo ci positif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 ci yeneen région yi am nañ ci ñaar fukk ak ñett toujours ci bilan bi ñu xamal leen tamit ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wéer nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ñaar fukki malade ak ñaar ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk seen bakkan bu su démb talaata juróom-ñaari fan ci weeru septembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñett yu teg ñett téeméer ak fukk ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom benn fukki junni ak juróom yu teg fanweer ak benn wér nañ si junni ak juróom-ñett téeméer ak benn ak fukk juróom benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci loxo docteur yi ak malade ñi nga xam ni ñu ngi leen topp ci biir kër yi. bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot a ñàkk ñu ngi toll ci benn million ak téeméer ak juróom-ñetti fukki junni ak ñaar yu teg téeméer ak ñeent fukk ak juróom.